daleen ak jàmm Ablaye Mbaye Pekh mi waxoon na coronavirus amul tuuba weddi na ko ba mu set nee na taskatu xibaar yi ñoo déformé ay waxam maanaam ñoo ko waxal lu mu waxul. daal faalewul ay coronavirus ak yooyu. ñemewul sax suñ Touba. du ko gis du ko dégg. waaw waaw waaw te ñii nag waxit naan Touba Touba la fa nañu wax fa mu amee. ak gan kër la. gan la. loolu sax lu ñuy gëstu la. kon ko ko ay rumeur la. ay faale woon coronavirus. sëñ tubaa rek lañ am sëñ tubaa lañ gëm sëñ tubaa la ñu wóolu sëñ tubaa la ñuy wàllee bu wootee noppi nañu xamuñu leneen ñun sëñ tubaa rek lañ xam sëñ tubaa rek la ñuy waaje moom la ñuy wàllee loola waral fi ne nii màggal Kazu Rajab ilaa Kazu Rajab ilaa ilaa ilaa Tuubaa gaa yaa ngi welweli rek waaw kiris ba dugg na Tuubaa waaye Tuubaa loolu du fa dugg bu fa duggee day génn te du lor kenn yabu nañ nag ci mbojum sëriñ Touba lool ba xew gaa yi fëkk rajo yi naaw falaan rek song Touba affaire baa nga Touba affaire baa nga Touba affaire nekkul Touba sëñ Bamba nekk Touba ki nekk Touba nañ ko wax affaire nekkul Touba sëñ Bamba nekk Touba daanu leen dénoncé ñu noppi ak seen rajo yi ak seen télé yi nañu tëj seen gimiñ yi sëñ Bamba ne Touba dañoo war ni sëñ Bamba nga Touba waaye luy lore néewul tuuba ni ko daal murit yi moom xaw ma kenn waaye nun suñu xel dal na suñu yoon nekkul ci jàngoro sëñ Bamba la ñu gëm sëñ bamba la ñu wóolu sëñ bamba la ñu yaakaar sëñ bamba la ñu àndal sunu yoon ci jàngoro yàlla na fi yàlla yàggal sëriñ Muntaxa Mbàkke mënu ci dara ndax fii sëriñ tubaa fi ñaan ñi fi tëdd fi eh, ñoo fi ñaan ndax réew mu sëriñ tubaa tëdd sëriñ Babacar Si tëdd fa Seydina Limaamu tëdd fa Bu Kunta Njaasaan tëdd fa jàmm rek a am fii réewum jàmm la yàlla na fi yàlla def jàmm loolu nañ koy dégg rek waaye buñ ko teg bët ñu koy dégg rek. bu ñu fàttalikoo ci lu yàggul dara nag kii di ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr menacé woon na ñu nekk ci internet bi di wax naan coronavirus amul ndax kat mbir moomee day sooxeel lit bi nga xamante ni état bu Sénégal taxawal na ko ngir xeex coronavirus fii si réew mi yooyu la menace nag mel na ni ministre bi kafu si ndax appliqué na ko loolee moo waral sax ba ñu wóolu ab Ablaye mbay Peex di communicateur traditionnel foofee ca section de recherche Ablaye Mbaye Peex nag ci kanamu enquêteurs yi ko vidéom boobe waaye daf ko weddi dal di sax jégglu bëggul woon a wax loolu moom communicateur traditionnel bi nag ci kanamu gendarme yi lam fa xamle moo di billaay du ma waxati maanaam dootuma wax lenn lu jëm ci coronavirus bi lu dul sensibilisation loole nag moo waral ba procureur daat koy bàyyi mu daal di ñibbiwaat këram xanaa rek ñu bàyyi leen ngeen déglu sorteem bi mu def ginnaaw ba mu jógee ci section de recherche. laa wax de. jàngoro yi dugg waaye sëñ Murtala na sëñ Muntaxa nañ joxe ñaar téeméeri million nga ne jàngoro amut te jàngoro ji nekk Touba ma dëkk Touba. xam nga loolu duma ko wax. moo tax nag euh, maa ngi wax yoonu mu yëpp ñu dal. sant yàlla man kenn mënumaa jaxase président de la république kenn mënumaa jaxase Abdoulaye Diouf Sarr bi may woo fekk na ma jokkoo ak Mansour Mbaye pour jël communicateur yëpp ci yem xeex jàngoro ji man ak El Hadj Mansour ñoo ngi doon réunion. pour woo communicateurs yi ñu xeexi jàngoro ji fii bu fi jàngoro duggee communicateurs yi yëpp war nañoo jóg. Hmm. waaye laay mbay nag sañ naa ñaan ci barke sëñ Bamba. Hmm. bu jàngoro duggee Touba yàlla ko fa sëñ Bamba génnee. Hmm. mais euh, ñi la woolu woon sànq euh, bi nga leen waxee loolu kon dañu ni jeex na. ah déedéet biñ ma wooloo xam nañ ni ci ci kii laa nag te liñ ma woo ñoom liñ ma wooyee sax wàññiwul dara lu baax rek lañ ma wax. mbay Peex porteur de waa nga ñëpp xam na sa wax. boo waxee ñëpp da kon nag xamuñu woon ni la ko waxee waaye del wax yow li ngay wax luy jëriñ président xam nañ ci wetu président nga nekk. Hmm. man leen dajale naa fi mu ne communicateurs yi pour wax xeex ak jàngoro ji. waaw. barki dem laa dem ci plateau bugaan yónni ma ma taxaw ci plateau am ni ñu ubbi nañ suñuy bunt pour xeex jàngoro ji. Hmm. nag kon du wax leneen. Hmm. sama làmmiñ wi luy lor Sénégal wala luy kenn jóg lu ma waaye yéef koo dégg nag mu contre ma baa mu xeex ma sëñ Tuubaa bi ma yàlla bind nag sëñ Tuubaa tax du ma daw ci sëñ Bàmba tey du ma ci daw ëllëg li di mhm. ko wane sëñ Tuubaa laa gëm moom laa wóolu mhm. te président Macky Sall defal na ma teraanga jooju ma nekk ci wetam du song dara ma di ko xeex Abdoulaye Diouf Sarr di kenn ci man poste santé bi ñu may tabaxal feex léegi ñu tàmbali ko mhm. kon ñiy wax ak ñiy bind nañu wax lu ñu xam jërëjëf man communicateur buy wax jàmm laa buy def jàmm waaye am nag bu amee Touba sañ naa ni yàlla na ko fa sëriñ Touba génne. Eh, léegi yéen communicateurs yi seen euh, xeex par exemple est-ce que organisé wu ngeen ba pare ak. Euh, oh, nan ngeen ko fas yéene amale léegi léegi laa jokkoo ak Mansour Mbaye organisé na nu ba noppi. Mhm. man ak Mansour mbay mhm. ak ñoom bekkaay yi ñun ñëpp. dañuy jël sunu matuwaay yënguñu ci wax mais dañuy yëkkati sunu alal jàppale yëpp gouvernement bi. Mhm. ngir xeex ngir xeex li. lii bu fi duggee communicateurs yi seenu xeex ñëpp war a jóg te man bu ñu xeex jàngoro ji may jiitu. jërëjëf jërëjëf. loolu loolu nii nii la demee ku déggoon loolu na dégg lii. Mm-hmm. bu ke merewuma kenn nag. Mm-hmm. maa ngi balu murit yëpp itam parce que euh, Touba ngi jóg ñëpp a ngi may woo mais ñi ma woo jàmm lañ ma woo lu baax lañu waxanteeg man. Mm-hmm. lu baax it laa tontu. luy may réew mi ndam nag di ko may Macky Sall maa ngi ca ñuy wax ñëpp maa leen gën a jege Macky Sall. jërëjëf. waaw loolu la jërëjëf mbay jërëjëf lii dong la. mu ngoog mu nekkoon Ablaye euh, Mbaye Pekh